cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñuy seetaan seen télévision en ligne bi syndicalisme TV nees kiis ñu dikk ak ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci rek ci Tambacounda ñaari doomi aadama yoo xamante ni dafa ñu jot ñàkk seen bakkan loolee nag tukkee ci ab l'accident boo xamante ni moo ngi am foofee nag ca yoon wa jëm ca Dakar Medina Gounass loolee nag doon jamono ji nga xamante ni ñoo ngi amal boobu le ziara mu jeex nag ni ki tey ji ci yoon woowee nag ca la ñu amee benn pa l'accident boo xamante ni si ñaari doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan wax ci leneen ca Casamance armée bi nag commencé waat amal ab opération boo xamante ni ab opération de ratissage la jëm ak base rebelle Salif Sadio loolu nag ni ki démb la ko DIRPA dal di xam ne nag fi ñu doon la ñu bëgg rek moo di bépp base boo xamante ni Salif Sadio dal ni koy moom ñu dal di koy euh, nangu lu ñu mel nag ñoom ñoo ko xalme di waa bi ci jaarale ko foofee ci kuréel googu yore lépp lu jëm ci jokkalante gi di waa DIRPA Goudomp nag benn émigré boo xamante ni si a pistolet la yor dal di koy ubbi ci ñaari nit ni si ñu ngi leen loolee nag am gannaaw bi nga xamante ne am na lu mu doon jortu ca ñoom donte nag ñaari doomi aadama yi ñàkkuñu seen bakkan waaye nag jëlee na waaye nag jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu métti métti del wax ci wàllum politique ak délégation coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye moo ko daal di jiite nag ci week-end wi ñoo ngoon ca Kaolack ministère de l'intérieur ba woon nag président de la république di président Benno Bokk Yaakaar Macky Sall fa daal di yebal mission boobee nag ci genn wàll gi rek tate yi waaye itam ci euh, waaye a def ba boole waat troupe yi ci élection législative yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal Aly Ngouille Ndiaye profito ca loolee nag daal di tiire ab bilan ci local yooyu nag waaye itam wax li tax rek ñu am défaite foofee ca Kaolack waaye na sax résultat yooyu commune bu département nag wane na ne ñoom majorité bi nañu am ca commune bu Kaolack loolee tax nag mu ne fi daal li des moo rek bu booloo élection législative ñu mun caa jëlee ndam noonu itam maire bu Linguère woote rek ngir rek ñu gën a xool nees war a def rek boo ñu mën a déggaat wiiw ci li nga xamante moo di élection yi ñu jëm bu dee ca Fatick ki nga xamante ni moo di Alioune Sarr moom la ñu daal di jiite ci boobu les euh, conciliation d'unification et de réconciliation foofee ca Fatick nañ ko defee ca Kaolack moom Alioune Sarr moomee la ñu bëgg rek moo di ñu fexe ba boolewaat doole yi mën a jublu nag ci élection yi nga xamante ni si moo di élection législative yi tolluwaay mbas mi itam daanu wax niki tey ji ñeent ñeenti doomi aadama yoo xamante ni amees nañu jàngoro ji ñaar ñoo jot a faatu ci mbas moomee mu bokk nag ci lim bi nga xamante nag moo tukkee ci woppi fii ci réew ma Sénégal wax ci beneen xibaar Sénégal naka war am lu toll quatre-vingt-dix milliards ci banque mondiale gi loolee bokk na ci mbébét moo di fexe rek ba courant bi moom mun a yegg fépp ci réew mi ak yenn ci gox-goxaat yi nga xamante ni ñoom amaguñu courant loolee nag moo tax nag banque mondiale daal di juqi lu toll quatre-vingt-dix milliards rek jàppale ko réew ma Sénégal ca Kédougou moom lu yéeme moo fa xew gannaaw ab bébé boo xamante ni daanaka juróom-ñaari weer képp la am foofee nag la ko yaay woon ca néegam dal di génn jëm jëndikoo laataa muy ñëw nag foofee la ko defkatu ñaawte fi fekk daal di koy yóbbu mu nekk nag loo xamante ni jur na njàq rek tiitaange bu rëy rëy foofee ca diwaanu Kédougou loolee nag tax gendarmerie daal di dugal loxoom ci mbir mi daal di ubbi ab l'enquête ngir jéem a xool ana kan rek moo def jëf ju ñaaw joojee daal di sàcc doomu jàmbur ji a xamante ni ab liir wu tooy la am juróom-ñaari weer képp cant ak ngërëm ñeen na leen mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax ci kóolute bi ngeen am ak seen plateforme plateforme bii di syndicalisme TV di fi taataane xibaar li moo fi nekkoon xibaar dig daje ëllëg ci beneen jotaay mbokk yi jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm.